ginnaaw nuyoo bi sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun rafet na lool ñu ngi ciy bég bu baax a baax di leen siyaar ñun ñëpp nag du leen ndokkeel ah, ci ñi nga xam ni ñoo ni topp bu baax a baax ñu mën caa ah, sippi ña nga xam ne ñoom Ousmane Gueye ak ki nga xam ne mooy ah, mu du Cissé borom parcelle ñoom jaasal ak ki nga gaa yooyu yëpp ñu ngi leen di bégge ci topp bi nga xam ni ñu ngi leen di topp am na solo commentaire yi ña nga koy gis bu baax a baax yaa Alioune Cissé ci xët yu njëkk yi nga xam ne daanaka loxo ba la tàllal la mu ko tàllale du lenn lu dul saawa gi nga xam ni foofu la bëgg ay gayndeem jaar fa jaar googee nag ah, tey jii lañ ko war a xaar ah, bu 17h jotee seen digganteeg bi mu nar a nekk match boo xam ne ah, ci ñaari équipe yi am na importance kenn ku man ci doon surtout Sénégal gi nga xam ne la muy préparé dëgg mooy match yi nga xam ni bokk na ci ñi ubbi li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique boobee nga xam ne ma ngay amee fa li nga xam ne moo nekk Qatar te Aliou Cissé war caa gën a am taxawaay boo xam ni bu am solo la sas nañ ko sas woo xam ni ah, dina ko war a bay ba mu set wicc te du ko ah, santaane leneen loo xam ni mu ngi ci yëglikaay bi di ñaari suyeer yoo xam ne kenn ku ci ne fa nga ne yow la ñu jiital muy Sadio Mané ci Sénégal ah, nga xam ne daanaka numéro 10 la takk nga xam ni préparation match bi nga xam ne démb tamit mi ngi woon ci entraînement boo xam ne bu saf sàpp la Aliou Cissé jàkkaarloo naag presse ak presse internationale bi ca saal nga xam ni. ñoo nekk fële nga xam ni euh, moo euh, nekk Orléans yaa nga xam ni fa marché match bi war a amee ton tamit euh, ton ni na tey jii wala boog démb Gana ñetti bal ci dara la ko al équipe bi nga xam ni moo nekk Brésil nga xam ni fi mu toll nii moom it mi ngi am waajtaay gaa xam ni bu baax a baax maa nga koy def ci la nga xam ni moo jëm ca coupe du monde bi nga xam ni daanaka équipe yi tey ren jii waaw ni nu baaxee gëj nañ koo def équipe yëpp baax mu nar a nekk kon coupe du monde boo xam ni bokk na ci histoire coupe du monde yi nga xam ne moo ci gën a métti ndax ponkal yëpp daanaka ña nga ca biir sëmbaxloo ba nga xam ni moo nar a woon nekk fële nga xam ni mooy euh, réewum Qatar te Sénégal euh, nekk ca biir li nga xam ni mooy programme yooyee di lu am solo bu baax a baax leneen tamit loo xam ne mi ngi ci beneen yëglekaay boo xam ni euh, xëy na ko fii ci Aladji Malick TV di record du journal bi Youssou Ndour nga xam ni gaynde yi nga xam ni Euh, solidaire lañu def tey jii nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci ne euh, doon nan benn dank euh, daal di juboo nekk li nga xam ni mooy benn pour mën a waajal jongante boo xam ne jongante bu am solo la tey jii fa France tey it jongante boobee nar a am ci biir li nga xam ni mooy RTS en direct nga xam ne a partir de 17h yéen ñi bëgg a seetaan match bi foofee mooy fi nga xam ni moo koy wane en clair loolee am solo bu baax a baax yeneen information kon ci kanam tuuti ñi ngi koy togg information yoo xam ni soxal na équipe nationale ak li nga xam ni mooy programme beeg doxantu beeg loole lépp danañ ci dikk léegi fii ba match bi commencé seen seen préféré Aladji Malick TV dara du leen ci ump abonné leen laal notification yi.